xatambal xatambal xatambal xatambal sowro ma raasa gi avancé bébé jugal avancé ñëwal avancé ay waay avancé ñëwal Sénégal a yëngu faalewu ma décrétu Macky Sall faalewu ma décrétu conseil constitutionnel aw candidat dans l'opposition aw candidat dans le pouvoir doos yaay sama Amadou Ba. xoolal yaay sama candidat sama carte benn la yow laa ko jox. man suñu may boole nañ ma boole ñu toog seen néeg sëy di sëy buñ ma yeddee ma jël. waaye sëyoo yaa ca woo. yow maa la tane xoolal maa la tane fu mu ju fu mu am. wër am yow lan nga fi sëy. defal nànk damay bañ nga wax toj toj defal nànk defal nànk. comme si man toj rek laa nga dëkk. ñëw ci Diouf Intercontinental nga dugal ko fa participer. pétrole bi bu génnee yow da nga ciy am da nga ciy bénéficier wu parce que cotiser woon nga. Mm-hmm. am nga pourcentage booy jot. loolu bu ñëpp bu ko ñëpp defee noonu du ñu nangu benn tubaab wala benn pays étranger di ñëw di puiser suñu pétrole di ko yóbbu comme ni ñu def yeneen zones yi. yow doo sëy sa sëy ba pare ne moom du sëy sëyam yow lan mooy problème bi jëkkëram moo ko tere liggéey bi doo ko bàyyi mu toog ci kër gi ñàkk liggéeyam bi lan la la wàññi. Cœur brisé. Euh. Cœur brisé. yow eh da nga nga xam nga ne kii dafa yóbbu sama fit bi xaaral ma. Eh, nga ci man yaa may dégg na sa loxo bi bougé ci téléphone bi mooy pare nga ci man gis nga ma yow pare nga ci lu neex wuyu. Yacine xaar moo may woo. yow eh na nekk sa baay wuyu.